Aujourd'hui, nous sommes présents ici au centre Tâche-Bonne afin de recevoir des prix à l'issue des épreuves des Olympiades organisées par le mouvement Après en collaboration avec l'AS de Sébicotane dans le but de promouvoir l'excellence au sein de la commune. Nous apprécions et approuvons cette initiative car elle promouvoit euh, l'excellence et accompagne la jeunesse de Sebikotan à viser l'excellence, mais aussi à les encadrer pédagogiquement, à les soutenir, à les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que Sébikotan soit un exemple de réussite. Je suis Serine Moustapha Anne, euh, lauréat au concours euh, olympiade organisé par l'organisation AS et APRES. Euh, je trouve que c'est une très belle initiative parce que cela pousse les élèves à se surpasser, à atteindre le niveau que les primés ont voilà mm-hmm. comme ni nga koy faral di amalee chaque année donc ren euh, dañoo organiser une euh, journée euh, les olympiades de Séville nekk benn concours d'excellence boo xamante ne ay élèves dañuy jongante si mm-hmm. différentes matières donc ren jii nii defoon ko si mois avril bi donc plus de 150, près de 150 candidats ñëwoon nañu pour suivre def concours de Euh, au lycée de Sewuktar donc si cent cinquante yooyu noonu ñoom ñëpp rak euh, première nu ñu jëloon seen classe donc classe bu nekk dañ faa jël ñetti élève pour euh, ñëw représenter seen waa classe si jongante boobu noonu bu ñu defee concours ba pare classe bu nekk si si ñoom si si ñett ñooyu noonu dañ si jël benn xamante ne moom mooy doon la meilleure le meilleur élève donc Euh, de cette euh, de cette euh, de cette classe donc bu bu ñu defee loolu am nañ ci quinze lauréats jot nañ ci am quinze lauréats xamante ne trois yoo xamante ne sem 1 la trois sem 2 donc trois quatrième ak trois troisième ak trois yoo xamante ne terminal la ñu woon def donc tey jii nii journée d'excellence bi xamante ne moom nu ñuy sargal élèves yi aussi sargal euh, ay ay nit ñoo xamante ne dañoo nekk ay référence ci monde éducatif bi donc dans euh, dans la commune de de Sébikotane donc mën nañ ci citer euh, comme le parrain donc Mamadou Kandji donc qui est un professeur boo xamante ne mu ñuy ICAT nekk historien gëstu lool si histoire Sébi donc def liggéey bu am solo ci ci histoire Sébi donc moom moom mooy parrain wu événement bi également euh, euh, monsieur Diallo que euh, surveillant général qu'un euh, surveillant général au lycée nekk actuellement surveillant général euh sa école Gandiol donc moom tamit ñu ñu fas yéene sargal tay ji ci biski ni également suñu marraine muy Aminata Aydara nekk soxna si ci euh ci walum éducation dem ba nek docteur donc euh, nekk fële sa sa ICAT donc euh, moom tamit di kaa fas yéene sargal xamante ne référence la si bépp euh, ndaw également référence si bépp jigéen boo xamante ne si lauréat d'ailleurs lauréat yi suñu xoolee si si quinze lauréat yi daanaka dix yëpp ay ay ay jigéen lañu donc xam di wane ne jigéen yi ñoom ñoo ëpp ñooy gën a góorgóorlu daanaka si si si si si école yi daanaka donc tey jii daal moo newoon tey jii moo ne woon euh, journée d'excellence bi fii nii ci centre euh, Tadja bon xanaa di euh, ñaan yàlla sotti